dëkk yi développé yëpp tey culture dafa occuper une place extrêmement importante dans dans dans en fait ci maanaam nguur gi nu muy doxee président Macky Sall aussi am jéego yu am solo yu mu ci def donc euh, def na ci dara mais ñi ngi ñaan mu gën a dolli waaw à travers son ministre de la culture waaw. mu gën a dolli <laughs> mu gën a dolli parce que dafa am solo parce que tey xam nga li may wax rek euh, euh, Sénégal y a beaucoup de créativité maanaam sénégal yi macha allah tey yaakaar naa ne kenn seetaanatul Novelas wala ñu koy seetaan bëreetul. donc kenn jéggaaneetul sunu maanaam li nga xamante ni tey moom la population sénégalaise di nu moom la ñuy bind di ko teg ci télé bi donc ça c'est une bonne chose et dañ ko war a encourager euh, ku gis euh, ki nga xamante ne moom mooy Cheikh Diagne sa xel day dem ci Marème Diall ngeen def euh, saison ba nga xamante ni Marème bokku ci hmm, naka nga ko dundee saison boobu. waaw saison 3 bi la je pense maîtresse donc Marème n'était pas là. bon euh, nekku fi woon pour des raisons professionnelles yoo xamante ni ni moom la engagé woon donc euh, euh, mu xaw a am lu mu def ci maanaam film bi parce que ñëpp ko doon xaar diwam Marème Cheikh c'était explosif et donc mais dañuy wax adduna moom ay nii dañuy ànd taxali ko donc loolu la et je pense que def nañ troisième saison boo xamante ni nii aussi nit ñi apprécier nañ ko buñ sañoon nag Marème nekk ci biir waaw mais noonu la ko yàlla bëggee parce que nit mënoon naa dem man aussi parce que tey bu ñu ma woowoon feneen foo xamante ni nii euh, gis naa fa sama bopp wala ma am lu ma gën a neex foofu et damay dem waaw. Euh, maîtresse d'un homme marié est-ce que dina saison 4. waaw maîtresse d'un homme marié xam nga man bindu ma ko duma producteur bi. man acteur nga man acteur la donc tey jii nii ñu ne woon ñu ma woon suba suba ne ma Cheikh dañuy def saison 4 ma dem. waaw ah, mais kooku sa dépend de la produ euh, de la production et du scénariste de la scénariste du mois waaw ñoom ñoom ñooy xool euh, tey jii bu ñu tagaatoon ne woowaat acteurs yi man jàpp naa ne ñëpp dañuy ñëw joué waat waaw. bu est-ce que doo takkaat beneen ñaar. Euh, waaw xam nga man comme bindu ma mënu ma xam lay xaw dañ may woo rek jox ma scénario. waaw d'accord. buñ ma de toute façon ci saison yi passé gis nañ ne laala dem na fase naa Marème c'est sur que damay jëlaat keneen. wala ma jëliwaat leen ñoom ñaar rek. d'accord la question mooy loolu polygamie. polygamie en fait euh, polygamie c'est un état d'esprit pour man c'est un état d'esprit euh, euh, ki nga xamante ni moom moo choisir nekk polygame il faut qu'il s'assume waaw il faut que tu assumes ton statut de polygame. et euh, def li nga xamante ni nag moom la polygame di def c'est-à-dire que tey ñaar nga yor naam yamale moom kenn mënu ko loolu moom sunu borom bi sax bindul yemale waaye nag nga tëddee njaaxaanaay. Euh, ñu bëri dañ may fi naan Cheikh ñëpp xamoon na da nga jéng ci côté Marème mais non man dama naan déedéet nit ñi loolu lañu gis. Euh, dama lay poser benn question rek. yaay poser question mais man tey maay. Euh, bi laal bi ma takkee Marème laal la xel mi dem mu dem tëdd hôpital est-ce que toppatoo naa Marème j'étais au chevet laal la non. mais sa xel mu ngi woon ci Marème. mais c'est normal parce que sama soxna la dama ko takk. sama xe mais loolu mooy ñëw na ci man xas ma fekk ma hôpital na ma Cheikh sa jabar xam nga lan la bu mu ñu fontoo yi muy def yi fu xale la yaa may dégg mais dama ko dàq ne ko Marème dimbali ma bàyyi ma parce que nag la après tout laala man ak moom def nañ fukki at sama aaw la mënuma ko bàyyi. waaw non mais bien sûr. Mais est-ce que bi nga doon jël euh, Marème di ko indi ci biir néeg bi boobu xalaat nga ni sa aaw. non xam nga loolu c'était pour poser la débat c'était pour poser le débat. dund loolu ka waaw mais c' était pour poser le débat justement tey lool noonu c' était pour poser le débat lan moo tax Cheikh def loolu c' était une chose bu nga xam ne peut-être Cheikh waru def ñu bëri mel nañ ko ci euh, du lu normal man bu doon dans la vraie vie dama naan normal mais nag c' était pour poser le daal loolu moo doon piment film bi loolu moo doon kaani film bi. ah ma dans la vraie vie benn nga yor wala. dans la vraie vie non kooku du ma si tontu. boobu moom du ma si question boobu du ma si tontu. Euh, tontu xam nga man je suis je suis un musulman nest pas et droit à quatre femmes yaa ngi dégg mais bés non da ma laaj baay ma tontu yaa ngi dégg j'ai droit à quatre femmes tey jii nii bu ma gisee ku ma bëgg dama koy labar jël ko soxna waaw. lan moo tax euh, seen seen seen nekk musulman ci droit a quatre femmes rek lañ ko teg. non xam nga droit à quatre femmes bi. loolu sunu borom moo ko dogal ci suñu jëmm ji ñu bëri yéen jigéen ñi da ngeen wax ne góoñu moom loolu rek lañ ci jàpp mais nag dafa am ay conditions dafa am ay man de Cheikh du ma takk ñaari jabar te man mënewuma ko matewuma ko waaw je préfère am benn yem ca que may jël ñaar yoo xamante ne mënuluma leen leen waaw. d'accord euh, situation réew mi balaa ñuy tàggatoo actuellement ku nekk gis nga ni mu mel en tant que porteur de voix euh, tey ban conseil ngay jox jeunesse bi. Euh, conseil bi ma jox jeunesse bi euh, mooy euh, de revenir à la raison il faut revenir à la raison raison nag buñ koy wax y raison et raison li ma bëgg wax foofu mooy lenn ñi ñuy xeexal jaruñu ko pour man moo xam ki toog ak ki bëgg a toog parce que tey ku nekk am nga droit def politique ku nekk am nga droit de politique. mais il faut avoir raison garder tey li nga xamante ni ni moom la ñu yàq ñun askan bi ñoo ko moom ki falu dañ ko fal par les urnes bu ñu demee ba doyal ci moom nañ ko fi dindi par les urnes jarul xuloo jarul xeex am na ñu ko fi jiitu woon yaa ngi dégg bañ bëggee ñu jógee fi dañ fi jógee et par les urnes lañ ko defee nag par les urnes lañ ko defee mais toj lakk. yàq bakkan tu bakkan faatu ci deret tuuti pour man amul sens amul sens Sénégal benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar yaa ngi dégg tey jii koo toj boppam sa cousin la wala sa sa mbokk la sa deret la parce que ñun Sénégal ñu ñëpp a bokk xam nga Sénégal balaa nga xam ne ñëpp a bokk tey nga dugg ci réew mi suñu mbokk yi ñu ci police bi ñu ngi ci gendarmerie bi ñu ngi ci nguur gi ñu ngi ci ñu ngi ci ministère yi ñu ngi ci collectivité locale yi ñu ngi ci dëkkuwaay yi. donc ñu ni neen ñooy xaañante suñu bopp donc ku ci nekk na xalaat bu baax li ngay def waaw. merci beaucoup et bonne fête. merci may euh, profité ci occasion bi di baal ñëpp ak di baalu ñëpp ak e di ñaan yàlla sunu borom euh, gaalu sunu sunu gaal yàlla na fi yàlla wasaare jàmm ak salaam parce que jàmm ci la lépp xaj euh, man j'ai la chance de voyager dans beaucoup de pays d'Afrique waaye lu dul jàmm jàmm ko gën dëkk yi nga xamante ni dañoo nekkoon ci ay fitna ay xeex ay gis nañ ko. Euh, développé wu réew donc nañu woote jàmm parce que jàmm rek am solo di ñaanal yëpp nag kooru jàmm ak salaam yàlla may ñu ñu woor ko ay at yu bari et te Sénégal yàlla wesaare fi jàmm salaamaaleykum. jërëjëf Cheikh Boulal PM jërëjëf. Marème Diall. <laughs>